Gaston production moo woote bésu samedi 1er janvier ci arène nationale drapeau El Hadji Mansour Mbaye borom ca dëgg-dëgg ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier. waaye nag bu leen fàtte ni Gaston Mbengue la Don King de l'arène ci lay féete 30 ans ci lamb ji depuis 1992 ba 2022 Gaston mi ngi bégal amateur yi. cey le premier janvier ca arène national ba ku yéex doo am place li ko waral mooy ñaari xale yu ñu boole ak lam tombé les 30 ans de Gaston Mbengue mbokk yi lamp jaa ngi noonu nag en live lay doon pay per ci seen affiche point com yow mi am sa carte bancaire wala sa compte paypal mën ngaa jënd sa passe en prévente à 9 virgule 99 euros boo xaaree nag ba bés ba mën na laa dikkee 14 virgule 99 euros les codes seront disponibles via. dièse 144 dièse wala dièse 1 2 3 4 dièse pour yéen ñi nekk Sénégal. code bi nag 5000 francs dong lay jar ñu may la cinq heures de temps de connexion ndax nga mën a seetaan làmb ci en direct. asalaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bu ñu doon nuyoo rek di leen di am mbégte ak contentement nag di ànd ak yéen saa su ne si ay programme Lutte TV tey nag Pape ñu ngi ko gisee ñu ngi toog nag ak ah, le ni ñu ko le maire sax laay wax ah Mame Mbaye nekk koo xamante ne yaakaar ne kenn dootu ko présenté tey si réew mi euh, avant rek dañ koy nuyu dalal ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan TV monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la maa ngi leen di fay di nuyu waa Lutte TV yëpp di rafetlu liggéey bi ngeen di liggéey spécialisation bi ngeen nekk di suivre benn sport di ci jàpp pour mu mu développer. en tant que acteur politique tey Fallou Ndiaye tëgg làmb ju mag tey euh, jagle la ko tey ban sentiment moo lay animé ci loolu. waa sant rek sëñ Fallou Fallou Ndiaye moom vraiment nit ku baax la jeune entrepreneur di di liggéey di liggéey ba yàlla indi ko fii liñ koy njëkk ñaanal mooy yàlla na ko yàlla yóbbu ba mu doon ki gën a mag. ci promoteur yi parce que wax dëgg yàlla am na taxawaay bi am na yéene bi ci am na jikko ji mën a def bon di ko remercier nag parce que jàpp naa ni ñu ma ëpp solo fuuf ñu ngi ci réew mi mais mu tudde ñu ko jagleel ko ñaari nit yoo xam ni kenn ki sama mag la kenn ki sama bàjjan la du jànjeex ko sama mag la ndax euh, taxaw bu ma taxaw ci li may def ak bëgg bu mu bëgg réew mi ak ndagaaru gi mu bokk ay Aïda Ndiong tamit wax dëgg yàlla bett na ñu bari sax mu laxasaayu di ma jàppale parce que amul luñ ko mën a jox lu mu amul woon muy ci wàllu teraanga ci wàllu tur ci wàllu daraja baax rek ak bëgg am yéene defaraat soppi yëf yi donc Modou euh, sëñ Fallou ñaar ñooñu la jël tuddee leen ko donc ñun la ko defal ak ñun waa coalition Sénégal 2035 yëpp parce que wax dëgg yàlla ñi ñi gën a ràññeeku ci ñun ci wàllu jàppale askan bi ak jàppale président de la république la jël tuddee leen ko. ñu gis ne tamit ne maanaam surtout mbiri làmb tey dañ daan gis euh, autorités yu bëri wala tey acteur politiques yu bëri dañ daan daw parrainage waaye dafa mel ni yéen moom lii da ngeen ko jël jël ko ak amour jël ko tamit ak euh, maanaam mbégte. xam nga nee nañ dëkkandoo day wàlle <laughs> mënoo di ànd ak du jànc doo bëgg làmb ndaxte moom peut-être passion am làmb la bu ngeen toogee waxtaan 30 minutes sax nga dégg benn mbër woo ko wala benn promoteur woo ko wala événement am nga dégg mu commentaire donc yenn saa da ngay dem ba passion boobu daf la koy wàll donc euh, dañ ko def ak ak ak ak ak ak rek ak yéene tamit parce que tamit ki ñu ki ñu ko def ki ñu ko tuddee wax dëgg yàlla nit ku baax la donc nit du jël cër jox la te doo am cëru wax ca wala fekk ca wala teew ca. Mhm. mu nekk tamit lu ama ama am solo waaye yaakaar ni nga ko waxee rek tey vous aspirez à être maire de Dakar tey euh, seen i projet tey ci làmb parce que gis nañ ni facteur de développement la activité la tamit boo xamante ni tey jeunes yi si àdduna wu dafa bëri tey euh, waaw li nga ci li ngeen ci yéene daal ci làmb tey. waaw liñ ci yéene day euh, mooy bu njëkk bi ko def yenn correction yi parce que am na ci yenn yu xew yoo xam ni par exemple euh, violence bi benn il faut que ñu jàpp ci il faut que ñu wax ak ñu seq làmb yëpp amateur accompa accompagner làmb moom ci laa jëm si woon parce que fan yi passé damay waxtaan ak président Doudou Diagne mu ni ma drapeau CEDEAO dafa am mais ma gis effort yi muy def di woote ay nit di woote pour ut ay partenaires pour ñu jàppale équipe bu Dakar boo xam ne dafa war a bokk ci tournoi CEDEAO boo xam ne fii Dakar lañ koy defee. parce que chef de l'État am dakaar day am équipe am CEDEAO day am Sénégal day am équipe boo xamante ne CNG tam dañuy laaj accompagne. voilà donc mais xam nga ville de Dakar képp ku gàddu turam ak ci bépp wàll di jaay turam ak di wane image yu dakaar ville de Dakar daf la war a jàppale moo war a nekk sa première partenaire mais bis boobu gis naa ni wax dëgg yàlla ñoom dañ ci rocc seeni loxo. taxawuñ ci feeñuñu ci ca pourtant équipe bu Dakar Dakar lay xeexal donc yu mel noonu jàpp naa ni warul am ci mairie jàpp naa ni warut a doon loo xam ni lu war a mën a nekk la donc correctif yooyu man jàpp naa ni ak ci wàllu sport yëpp muy ba ci football Jeanne d'Arc bu Dakar la Dakar amatul terrain bu bu bu xale yi mën a tàggatoo seen yaram mën a footballé mën a ca fekk am na ay possibilités ñun suñ programme présenté nañ ci possibilité yooyu donc sport en général je pense ne que mairie bi dinañ ko gën a impliqué ci kàttanu yàlla diñ ci gën a pousse làmb nag boo xoolee moom ak football yam donte ñaari nit ay bëre mais xoolal ñaata nit ñooy suivre ak ñaata nit ñoo bëgg doon mbër lim boobu takku na takk boo xam ni je pense que ku bëgg a defar Dakar ku bëgg a soppi xar kanam ngi di nga ko def ndax nit ñi ci nekk lim bi ni mu toll waaye tamit ak li làmb tekki ci réew mi ak li làmb di représenté ci ci réew mi. Mhm. nga nekk tamit koo xamante ni tey ni ma ko waxee rek euh, ci ci Sénégal nga bokk tey ba borom horizon deux mille ah, Sénégal deux cinq tey am combat bu ma la bëggoon laaj tuuti sax ma xam rek muy combat bombardier Balla Gaye 2 tey en tant que tey un sénégalais lam ta waaye en tant que amateur parce que ni nga ko waxee rek euh, Doudou Diagne Diécko moom ku koy frek lamb bi. waaw c'est que combat boobu man mënuma bañ a far parce que <laughs> nag wax dëgg yàlla euh, Balla Gaye soxnaam sama jigéen la euh, sama xaritu beneen jigéen la donc combat boobu moom wax dëgg yàlla far na. sa analyse rek sa analyse wala tey Balla Gaye boo ko àndoon lan nga koy conseil mu bëri ba mën ci. daan bëree rek. waaw wax dëgg yàlla nam daan bëree bu ko wàccul. ci kàttanu yàlla mën naa am ndam. pression bi est-ce a diis moom comme moo jël si revanche. non Balla vraiment sportif de haut niveau la du amateur donte fréquenté wu ma ko jot nañ xamante ni mais xam naa ni sportif de haut niveau la sportif de haut niveau la et mënoo nekk ci niveau boobu te doo am mental bu fort e en tout cas bu fekkoon man maay joxe ndam day wax dëgg yàlla moom laa koy jox. <laughs> aw ma benn problème ak bombardier mais sama yéene moom la Mhm. kon le dernier mot rek tey si sénégalais rawatina nag tey monde làmb ci échéance yi ngeen jëm. waaw fi ñu jëm moom mooy euh, vraiment ñu ngi wax ak waa dakaar defe na mën nañ bañ xëccoo mën nañ bañ a werante mën nañ bañ a xeex ñu def lépp ci jàmm werante bi na doon ci programme yi euh, werante bi na doon ci nan lañ koy defee werante bi na yem ci ay xalaat mais ci ay projet mais mu ñu def lépp ci jàmm ak dal. parce que loolu moo gën ci réew mi moo jig réew mi et loolu la waa réew mi bëgg beneen affaire bu fi nit def rek sa bopp ngay njëkk a yàqal balaa ngay yàqal askan bi. kon na nga merci jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. Gaston Production moo woote bésu samedi 1 janvier ca arène nationale drapeau El Hadji mbay Mbaye ca dëgg-dëgg ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier. waaye nag bu leen fàtte ni Gaston Mbengue le Don King de l'arène ci lay féetee 30 ans ci lamb ji depuis 1992 ba 2022 Gaston mi ngi béggal amateurs yi. cey le premier janvier ca arène nationale ba ku yéex doo am place li ko waral mooy ñaari xale yu ñu boole ak lam tombé les 30 ans de Gaston Mbengue. mbokk yi lamb jaa ngi noonu nag en live lay doon pay per view ci seen affiche point com yow mi am sa carte bancaire wala sa compte paypal. mën ngaa jënd sa paas en prévente à 9,99 euros boo xaaree nag ba bés ba mën na laa dikkee 14,99 euros les codes seront disponibles via dièse 144 dièse wala dièse 1 2 3 4 dièse pour yéen ñi nekk Sénégal. code bi nag 5000 francs dong lay jar ñu may la 5 heures de temps de connexion ndax nga mën a seetaan làmb ci en direct.